mën nañ leen li ñuy wax événement amu ci turu événement rek moo fi am waaye ren moom amuñu événement daal. boo mun a gis lépp luy waral lépp di dox day nekk si jàmm yàlla def na nag dëkk bi dafa nekkul si jàmm moo tax boo xoolee heure bi danañ fekk téer yi ñoom ñëpp seen place yi day fees del ak ay ñaw yoo xamante ni ay mbasseries ay jesner ay mbasse ay brodé ay vaxi mais boo xoolee loolu yëpp amul ren. li tax amul leen mooy nit ñi doo nekk ci fitna ba tàlluñu lu ñu ñawloo lu ñu lekk lañ tàll beneen bi itam étranger yi doon beneen bi étranger yi dañ ñëw ci dëkk bi itam di jël suñu bagage yi ñuy ñëw di ko jaayaat ni étranger yi ñëwuñu ndax parce que ñi gis dëkk bi di am ay xeex te dëkk bu am xeex itam kenn du fa dem loolu moo waral itam ñu am ay jafe-jafe ba tax mën nañ ne événement bi daal mu ngi nii ñu ne tekk di gisuñu dara. heure bi daan na fekk marché bi neex lool. marché bi neex lool mais instant bi marché bi day temp rek sant yàlla rek waaw ndax euh, avant tabaski avant avant bu desee weer bu weer day fekk daanaka étranger yi ñëw bu baax jënd bagage yi fi nekk yëpp commandé mais fi mu toll nii dalee wóor ni moom benn étranger ñemewul bi ak ak coow yi coow yi ni mu demoon temps yi ci ginnaaw moo moo yàq moo yàq liggéey bi tuuti tuuti mais nag sant yàlla rek ab jaam moom amul lu sant yàlla lu ci waay am rek nga nga doyloo ko xam ni loolu la yàlla dogal. client yi moom non tuuti tuuti na la ñuy ñëw moom par rapport ak yi passé nii waaw par rapport ak yi jàll yeneen moom ni dëkk bi demee moo tax ak tension politique bi loolu moo tax dëkk bi ren client yi ñëwunu noonu à 100 pour cent noo dëkk bi yaa ma gën a xam li fi am nii rek jàppal bàyyi li Adji Sarr Sonko waaw te ñi war a wax waxunu dëkk bi jaxasoo jaaykati xarit kenn ñëwul waaw mais sëñ bi nag li nekk na ci dëkk bi kenn waxu ko quoi billaay walaay mais lii moom a gën a neex na yàlla xam na loolu mais ren ji moom gars yi gisuñu dara yàlla xam na loolu gisoo suñu marché bi marchandise yaa ngi ni yaa ngi gis clients yi sax demeetul noonu ren mais daana gën a neex nii na moom wax dëgg si yàlla événement yi fi passé événement si procès Sonko bi ak Adji Sarr bi ñu affecté ci lu bëree bëri bëri bëri parce que d'habitude ñun suñu ressource ñu ngi jógee euh, si sous région bi entre Guinée Mali et euh, Côte donc impact boobu dafa tax étranger aussi ragal xam nga ragal ba finalement ñu ci waroon ñëw ñu bëri ñëwuñu quoi. déjà man j'ai des j'ai des commandes yoo xam ne dañu ma ko joxoon avant Korité mooy gis nga costume yi ngay gis nii c'était pour euh, le 16 juin bi mais finalement c'est c'est un corps étranger yoo ko moom finalement dañu reporté seen cérémonie si montant bu colossal la donc euh, ça crée des problèmes. je suis venue acheter des des marchandises. parce que je suis une revendeuse, je prends en gros et je revends. C'est dans le cadre de la préparation de la tabaski. Bon, c'est dû aussi à la vie chère, à les transports et autres pour venir et repartir. Vu que les transports sont coûteux, c'est dû à ça, je pense bien. Et généralement, pendant la tabaski, les gens préfèrent porter les basins que les autres tenues qu'on expose dans ce marché. oui. C'est dû à ça. Vu l'insécurité qui est dans le pays, les gens ont un peur. Il y les agressions et autres. Il n'y a pas la sécurité, donc euh, les gens sont un peu restreints à venir. fekk ren événement yi nu mu daan demee ay jamono heure bi daana fekk place yëpp vide conteneur yi sax balaa moo ñëw day xat gars yi dinañ nekk si ay dinañ dañ dañu ba sonn mais parmi léegi événement amatul sax si marché bi da ngay xëy toute la journée pour nga jaay sax du yomb ñun ay jamono duñ daan événement ba mu daan am dëgg dëgg dëgg da nga daan ñëw place bi doo fekk sax bagage mais léegi pour nga jaay foog nga nekk si réseaux sociaux yeeg yooyu te loolu aussi tamit jot lee laaj te am na ñoo xam ne amuñu jot bi quoi moo tax es bi dëkk bi kenn xamatul ban far si la lañ nekk quoi dañuy xëy di xooslu ba sonn dañuy dañ dañu lu ne la ñuy def loolu dafa dafa metti quoi war naa am gën a mën a affaire yi gën a changé quoi si job bi. gestionnaire yi sa gars yi avant dañ ko daan jënd mais léegi gestionnaire yi ñu bëri jëndatuñ ko ndax gars yi amatuñ njëgam. dëkk bi tees bi mooy loolu dara doxul ay filaafi nga mën a jaay ay anglais ay bolokaar tissu yu bees yi comme genre yi moom la gars yi di far di jaay lu bëri daal moo tax moom rek lañuy wàcce wàccee ins bi wàcce tuñu ay gestionnaire duñu wàcce yu yëpp damay def ay vente en ligne ainsi de suite affaire aussi dama yor sama place fële mais gars yi fii laay ñëw di jënd di yóbbu di jaayiwaat quoi di jaayiwaat sama sama client yi quoi benn dëkk bi ni mu demee nii quoi ak affaire te ba ñoom boo leen waxee li lay wax mooy fa muy jógee foofu lay seere quoi affaire importation yi li ñuy fay xam nga port beeg affaire yooyu noonu foofu la tissu yi prix yi léegi day wàcc si ba ci ñun ñi nga xam ne ñooy détaillants yi ñuy jaay suñu client affaire yi aussi ñoom it dañ koy yëg quoi ñu ngi koy yëg aussi ci loolu noonu boo leen waxee ñoom yaa ah dëkk bi deexul xam nga bu daan am benn léegi mun naa am ñaar ñett léegi benn la ni am affaire yooyu noonu xam duñ ko mën a jënd yenn prix yooyu da ngay obligé yow nga xool yow nooy mën a wàññee yow li nga si mën a am li nga si am quoi. du ñu wax ne xaalis amul du ñu wax ne xaalis am na ndax parce que boo xoolee rek yow li ñu yor ci ay bagages stocké ko fii mënuñu ko jaay suñu xaalis investir nañ ko ci biir te it euh, mënta génn kon tey ji mën nañ ne gisuñu daal fi dara la lu ñu mën a wax ne xaalis mi ngi nii événement bi daal dañuy toog di maintenir tout événement la waaye gisuñu fi xaalis gisuñu gisuñu client gisuñu. gisuñu client gisuñu ñi dañ jënd suñu bagage di ko jaay war gisuñu ko bu loolu weesoo li may wax mooy lancer président rek moom mi nga xam ne moo njaboote askan bi yëpp mu oyofal mbir yi ndax ni ko nit ñi di waxee rek jàmm ci moom lay déparé bu bëggee réew mi am jàmm dana am jàmm bu bëggee réew am jàmm dana am jàmm yaakaar naa benn benn nit wala ñaari sénégalais jote warul mën a tax population bi yëpp seen liggéey ak seen lépp jaare ci taxaw ba itam nu ñëpp ñu am ay famille suñuy famille di ci jaare ndóol di ci jaare di ci torox loolu yaakaar naa loolu waru mu mën nekk ci ñaari personnes yoo xam ñaari Sénégal yu jote rek tax réew mi daal dem kawoo nii doy na waar daal ko xamoon euh, senegal ak Colobane dëkk bu xew la ak jamono bu tol nii da nga gis marché bi dana fees dell ak ay étranger guinéen malien burkinabé façon nit bu ne moo fi dañ ñëw waaye boo fi ñëwee doo fi gis kenn ku ay sénégalais yu taaba taaba booy ak ñi nekk ci dëkk bi ñoom ñoo fi nekk dara new fi heure bi daawuñu am bagage bu ñuy jaay client yi dañu doon taxaw duñu am bagage léegi da nga yor sa bagage doo ko mën a jaay ndax parce que ñi ko war a jënd ñëwuñu moo tax ba place boo ci dugg yaa ngi fekk mi fees dalak ay bagage amuñu kuñ ko jaay lii moom daana gën a neex na yàlla xam na loolu mais ren ji moom gars yi gisuñu dara yàlla xam na loolu gisoo suñu marché yaa ngi gis client ñu daw wàcc te boo dawee tey daje gaa ñu jàpp la yóbbul na danga doon mars te yàlla xam ne ñu bëri na ñun jàpp tey ñu bëree bëri ñu ngi ci kaso yi tey marsunu yàlla xam na danoo daw daje gaañu ñu jàpp leen suñ marché fii am na boo yoo xam ne jàpp nañ leen te booy dañ doon daw nii rek daje gaañu ñu jàpp leen xam nga loolu tamit naayisul ñoo war nanoo mën a xàmmee ñiy marché ak ñi marchut mais tey boo demee tey lu toll ni marché Colobane nga tël di fi dóor ay lacrymogène mais nit ñi dañuy tasaaroo après dañuy wàcc yàlla mais affaire yi daal la ñu war a bàyyi mu sedd mu jeex président moo yor jàmm ji muy Macky Sall bu bëggee jàmm am jàmmam bu bëggul na jàmm du am moom yaa ma gën a xam mais bu ko neexoon lii lépp tey mën na jeex yàlla xam na loolu. na ko def bu ko defee rek jàmmam xar yi ñëw dëkk bi neex bi billaahi xam nga yaa ma gën a xam xoolal mbedd yaa ngi fi gis jaakatu xar kenn ñëwul kenn du ñëw ndax tey boo ñëwee tey yàlla tere tere tey dëkk bi gars yi tasaaroo. say xar mënoo ko daw di ko bokk ta nekk ah mais loolu na tey jii nii état la rek mais du kenn ku dul état moom dong la billaahi mais bu ko neexoon lii lépp mën naa jeex te yi tey ji ñaan la ay dóoral tëjal yëpp bu dëkk bi jaxasoo dañuy daw xaaj bi yëpp dañuy daw laqatu ji billaay wallaay ñi nekk ci yi nii di wax ay dóoral tëjal nii bu dëkk bi yëngoo xaaj bi yëpp tey kenn gisul leen danoo daw waaf barke yàlla ñi ay sali ñii ay ñi daw génn réew mi na dëkk bi am jàmm rek ñun jàmm ñu war ñun mooy lool ñun àll ba leen jógee ñëw ñun bu ñëwee ñun danoo war a tabaski mu neex waaw war a am xar ak xartum xam nga xale yi taxaw fii waaw mais loolu tamit na sëñ bi neel gaa daal na nu may jàmm ñun ñu liggéey. fii xale yu am jom ñoo fi nekk ñi ngi góor góor lu ñu man waaye dañu soxla jàppale bu baax a baax dañu soxla jàppale ci gouvernement bi ndax fii koo fi gis xale boo fi gis dafa yor benn masinam wala ñaari masinam di débrouiller di demal boppam nekk responsable kon nag bu ñu état bi jàppalee dina baax lool te taxawuñu bu baax ci marché bi ndax marché bi des fois mbalit mi daf ñuy sonal ak yeneen ak yeneen ak yeneen waaw kon daal ak tabaski bi ñu nekk nii bu ñu sañoon financement yi tamit gars dañ koy dégg rek ku mel ni sama classe kii ku ñu financé woon sa bare na du man kase man la ak sama ay moroom bu ñu jotoon financement yi dañu mën a demal suñu bopp waaw ndax fii xale yu am jom ñoo fi nekk ñu nangoo liggéey waaye financement yi da koy dégg rek affaire yi bu fekkee ñëw ne ñun ñun ñun sëñ moom gisuñu ko xëy na peut dafa tag ci ponkal yi wala dara waaye ñun ñii moom gisuñu ay financement kon nag ñi ngi sàkku ci gouvernement bi ñu jàppale ñu bu baax a baax ñun ndaw yu Colobane ndax Colobane mas la bu mag boo xam ne si xale yu am jom am fulla am fayda di teel a xëy du guddee wàcc ñoo fi nekk bu ñu tegee loxo rek ñu dem ñu ngi a à nos autorités vraiment ñu xam ne secteur informel bi nous sommes pas informels ñun nous sommes formels parce que man mi lay wax nii je peux te montrer moi j'ai un récépissé sur le plan juridique je suis reconnu par l'État j'ai un récépissé national tu as vu signé par le directeur de la sécurité nationale donc nous ne sommes pas informels donc aussi suñuy liggéey xale yi nekk ci quatorze régions Sénégal yi ak quarante sept départements yi parce que xale yi ngay gis fii yëpp ñu ngi ci région yi ak département yi donc tey revenu bi doon am fii di ko impacté di ko dem ci région yi vraiment loolu doon na am benn soubassement boo xam ne dina dimbali région yi mais su fekkee ni par exemple politiciens yi dañu ñëw di xeex à leur profit à leurs intérêts personnels y compris les deux les les deux parties donc ñun ñi nga xam ne ñoo nekk si secteur informel bi daf ñu affecté te loolu daal ñu ngi demande à le président de la République et les opposants qui est au Sénégal ñu épargne ñu ci loolu loolu li ñuy ñaan mooy dëkk bi am jàmm parce que soo amee jàmm xale yi fi nekk du dinañ liggéey parce que ñun ay xale lañu jiite mais du ñu ay xale parce que xale yu yor jabar yor ñaari soxna yor ay responsabilité di liggéey difficilement di ñëw fi 5 heures du matin di fi jógee 20 heures pour mën a soutenir à leurs besoins pour mën a jàppale seen fan su fekkee ne ay xeex daf fi am vraiment loolu aussi tamit ça crée des loolu daal vraiment état bi aussi war na gëstu secteur informel bi. parce que suñu nee secteur informel yow nga am récépissé am ni ne am registre de commerce te état du la subventionné parce que maa ngi seetaan tey télévision vers 6 heures du matin ñu ne par exemple le patronat ñu ngi dem ci les sociétés qui étaient en place des sociétés étrangères et des sociétés sénégal ci perte bi ñu def mais secteur informel bi soo xoolee 60 pour cent population Sénégal secteur informel lañ nekk mais secteur informel bi su doxul mais administration bi du parce que administration bi ay salariés ñoo fa nekk ñoom quel que soit alpha bu dëkk bi tàkkee bu dëkk bi amee jàmm ñoom du leen impacté parce que ils ont leur salaire mais ñun ñi nga xam ne par exemple ñun bu ñu xëyee toog suñu atelier yi client bu ñëwulee du ñu liggéey vraiment loolu sonal nañu trop trop trop semaine passée rek dem nañ ci benn kilifa bu mag bu ma tudd turam expliqué ko suñu cas autorité bu nekk dans la dans la place boo tudd Touré expliqué ko suñuy problème ne ko vraiment ci Covid bi nii lañu nii lañu problème bii la ñu amoon fi Covid bi parce que Covid bi li ñu tëb rek tëj dëkk bi tey am na xale yoo xam ne tey ñu ngi ci région yi dañu obligé ñu di jiddee seen machine di ko wanteer pour mën a am ñu jiddee bien vrai nag am na subvention bi état bi defoon mooy pour les artisans man defoon naa ci demande plus de quatre cent et quelques tailleurs yu nekk Colobane am na ñu ci jot mais matul sax 30 personnes donc ñu demandé état bi aussi mu xalaat ne daal secteur informel bi ñi fi nekk sont pas informels ñun dañu am ay papiers juridiques di liggéey pour mën a suqali suñu réew yor njaboot aussi parce que ku yor njaboot danga nga war a am dara mais soo yoree njaboot amoo dara day métti ci yor donc daal état bi ñu koy demande man Pape Ndiaye ñu nga xam ne maay président Taïru Colobane en même temps je suis le président du comité gestion du marché Colobane kon donc ñun climat social bi am na affecté nañu étranger kenn ñematul ñëw parce que aussi tamit bu jàmm amul kenn du jógee Mali wala Guinée di ñëw Sénégal pour def ay achat donc loolu daal vraiment bëgg nañu autorité yi jot boo xam dafa nekk ci carrefour Dakar parce que Colobane mooy marché boo xam ne par exemple mu ngi si nekk au cœur de Dakar Colobane soo jógee Colobane rek centenaire nga jëm après centre ville donc Colobane dafa nekk au cœur de Dakar donc moo tax ñun bu manifestation amee ñun dañu am jafe-jafe parce que jafe bi ñu am manifestation bi mu bu jëkkoon am na booy yoo xam ne dañu ñëw dugg seen place ay fo sax seen bagage jëpp finalement moo def bi cette fois am procès bi amee ñun dañuy jël suñuy devant wax ak ki nga xam ne moo yor sécurité marché bi déclaré ko autorité étatique yi pour nga xam ne ñun bëgguñu fajal suñu bopp parce que ñun nous sommes pas état ñu partisans ñun bokk nañ ci état mais ñu ay gendarme du ñu ay policier donc cette fois ci ñun dañu jël suñu garde tëj buntu marché bi nekk ci biir marché bi kuñ fi fekkoon nag aussi tamit ñun dañu jël suñuy responsable ak lacrymogène yi parfois gars yi dañuy sànni am na ñoo xam ne sont asthmatiques am na ñoo xam ne sont diabétiques te loolu ñuy nooy yëpp baaxul ci ñoom ñu ngi demandé alerte daal autorité ñu gën a privilégié Colobane xam ne Colobane muy marché boo xam ne au niveau de CEDEAO amul marché bu ko actuellement ni ci Dakar marché Colobane parce que corps étranger rek ñoo fi ñëw kon donc ñun dañu ñaan yàlla dëkk bi am jàmm parce que suñ ko ñaanul yàlla tey jii ay Guinéen ñoo fi ñu ay Malien benn ressource ñaanu ma ko yàlla su fi amoon jafe-jafe rek tey dana impacté état Sénégal ak ay ay voisins te loolu état bi aussi war na ci jël ay responsabilités ak ay matuwaay.